demal demal ñaari baat laa bëgg a wax ci Sénégalais yi nee day xar géej gi deux parties xale ba rapport ba ne ko bis boo xëree géej gi moom mu pintir asamaan waaye damaa bëgg xamal leen ne korog ngeen gis li ma ma ne teer bii teer yëpp lay warax teer yii yëpp lay ma lekk teer bi ba Kounkané naan géej gi ma lekk teer yi bu Kounkané naan géej ma lekk waaw daan xoolal lekk teer bi ah